Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et xibaar yu wér maa ngi bon lépp lu jigéen rek am na valeur lépp lu jigéen rek lu ci waaye def ci lu baax lu baax la donc dama ñëw jàppale ko ci sargal jigéen boobu. te profité ci di sargale jigéenu Médina yi ak jigéenu Sénégal yëpp. sama xarit la sama jigéen la bu méttee dama koy gis moo tax bu neexee di nga ko gis bu méttee di nga ko gis moo tax lu ma xew dina ma gis incha allah. ah bien sûr hein sans ñoom duñu dara parce que lii problème bi mooy euh, nit ñi suuf bu sutee moromam dañ ko jël. ñeneen ñi ñoo bàyyi seen lépp jël ko moo tax ma kawe donc su ma amee xel tuuti war ko delloo ci ñoom. yàlla maye jàmm ne ca Macky Sall gañe Dakar. ah déedéet déedéet man taalibe sëñ Touba rek laa doon ah. foofu rek doy na taalibe sëñ Touba la man député sëñ Touba la ah. waaw. Setsima l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te